Siteu bu andi am na lu muy suul am na lu muy gas waaye Akago pare na bu yàgg taxaw di ko xaar moom si moom Siteu bu andi ak Akago Akago <laughs> naar da ngaa naar. la jóg. moom tam mooy fooyee waat li ma takkaale sanet waaye garaawul. instant ñu ngi koy xool waaye agogo nee naa Siteu bu ànd bi fi daan. oh Agogo trompeur la fi daan waaye Siteu bu andi Zoss la fi daan bu jàmm gën san dem leen di xool arbitre baa ngi leen di xool lamb nangu at li lamb Siteu bu andi ar bi sifle na Siteu bu andi ak Agogo Siteu bu andi la Diop Siteu bu andi moo ñu wan ginnaaw yi di ñeen ñaan ñoom ñaa ñoom ci victoire lañ fi jëlee Agogo lañ jàkkaarloo moo xees Agogo yow Agogo trompeur la fi daan ndeysaan daanaan la daan Siteu bu andi sos bu jàmm la fi daan la fi daan ndeysaan teg la ñaar bi waa daan moo ànd sa booy Diop mujj na koo daan moom waaw. hey eh, bët na ko Siré Bane lan ay Siré Bane dëgg ngay bëreel naan kii moo bëreel Siré Bane Malika daan ko. oh moom Agogo. Agogo yéen a ko bañ. laa ilaaha illallah doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat doon na xalaat doon xale doole mag yamul kii daanal a doole noonu ndeysaan te si boo jëm la jëm si boo jëm si boo jëm la noonu ndeysaan ndeysaan